Euh, le conseil constitutionnel euh, valide na ki nga que le président Bassirou Diomaye par rapport à la décision bi nga xam itam jël expliquer euh, à sa manière concrètement waa d' abord euh, ñu sant yàlla. julli ci yonent bi parce que euh, nit ñaa ngi préparé di waajal. Mm. ngir dem euh, gàmmu. Mm. Euh, gàmmu nag nekk loo xam ni dañ ko jagleel gën di mindeef. waaw moom yàlla suñu borom li mu ko taggee taggeewu ko ci ci juddu. Mm. taggeewu ko ci am-am. daf ko tagg ci ay ci ay jikko. wataana sax ci alxuraan ma naan laxat kama laxum fi rasulillah uswatan wa hasanatan vous avez dans le prophète de Dieu un bel exemple donc ci ay jikkoom la ko yàlla tàggee loolu nag invite la parce que moom mooy suñu royukaay invite la pour ñu defar suñu ay jikko Euh, doomu aadama li nga am mooy euh, bu ñuy wax jikko moo tax ñuy wax ma makaarimal axlaaq mm-hmm. mooy jikko yu rafet mm-hmm. euh, mooy jëfante lu baax mooy mm-hmm. waxante lu baax parce que dañu nekk ci ay interaction ñun ak ay doomu aadama <laughs> donc di souhaiter à toute la communauté musulmane du Sénégal fép foo xamante ni këru diine la nga xamante ni rawatina Tiwaawan ak ñi nga xam ne ñoo jóge dem Medina bàyyi nga xam ne am na ñu jógee Nigéria partout à travers le monde fépp foo dem rek ah Touba dëkk yëpp daal donc Sénégal daal yàlla may nañu loolu te réew moo xam la ñu ñu fonk bi bi wax nañu daw dem maintenant bu question mm. question mais da nga mm. li nga résumé conseil constitutionnel mm. ci cër bi mu am na président laaj ko ci ay mbir euh, walu tas assemblée nationale bi su koy tas nan la ko wara a ban anam ak ban app waaye ginnaw bu ñu assemblée bi ban dispositif réglementaire et légal lay am mais ensuite nan lañuy organiser ay élections ginnaw ba constitution moo tënkale parce que suñu wax constitution moy li nga xamanteni ni li organiser. li nga xamni ni un état. Hmm moi les règles et le conseil constitutionnel son rôle est de veiller au respect de la constitution mm. mais aussi de contrôler la constitutionnalité des lois et des règles c'est-à-dire le rôle du conseil constitutionnel c'est de veiller au respect de la constitution mais ensuite de contrôler la constitutionnalité des lois et des règles ça veut dire des lois bu ñu génnee les règles bu ñu mm. day xol ndax constitution wax ni euh, le président Bassirou Diomaye premier acte bi mu posé am na sañ-sañ assemblée nationale parce que constitution bi moko jox sañ-sañ boobu constitution Sénégal mo jox sañ-sañ président de la république. Hmm. mu tas assemblée waye dafa am ci dire, bo xamni ci la fixé. Hmm. maanaam du ci jurom benn weer du ci benn at du ci ñaari at ça veut suba suñu demone élection 17 novembre Diomaye au cas où par exemple assemblée bi neex ko mu xëy na da koy tas du ko mën il va falloir mu am ñaari at mu doog koo mën a tas te ñaari at yi nekkul ci élection bi waaye ci installation bi parce que booy seet assemblée ba passé date bi 31 juillet la woon élection yi waaye installation bi le 12 la woon donc le fait que président bind conseil constitutionnel loolu mooy première démarche buy wane ni que buggul violer lu jëm ci wàllu constitution buggul def benn acte boo xam ni dinañ xëy suba ñu ne respecter la constitution. donc donc déjà loolu ben gage la donc moo tax conseil constitutionnel dafa am un xam ne moo en matière électorale. y a ce mm. qu'on appelle le code électoral. code électoral Sénégal dafa am yu lambo, làmboo. Mm. maanaam dafa am un boo les ni ci nous organiser l'élection élection nan la organiser élection kat moo ciy dem nuñ ci a mais xam code électoral constitution moo ëmb kon bu fekkee conseil constitutionnel wane na yoon dafay jëlaale sóoraale li nga xamante ni moo ci àddu woon moo tax comme dañuy wax élection anticipée la nekkul élection boo xam ne ci date due la donc comme c' est anticipé day am ay mesures exceptionnelles c' est à dire par exemple lu jëm ci wàllu parrainage dañ koy dindi parce que bu fekkoon dans les normes dañ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale ci app yi délai bi ñu may nit ki pour mu am def wuti parrainage mm. euh, diggante collecter les parrainages mm. traité parrainage dem dugal conseil constitutionnel dire bobu 185 jours premier mais, tour deuxième tour. mais ci non bi législatif mm. la. Hmm. amul ben tour la. donc ici motax ñu dindi parrainage bi donc ça veut dire euh, pour yombalal ñi nga xamanteni lool loolu na len tënk donc ñu dindi parrainage bi légui nak date bi ñu am donc conseil constitutionnel lool mu joxe moy date bi bala président di génn di wax wala muy addu dafa dem mu déglu conseil constitutionnel kon loolu day wone ni kon mom limuy def. de jitu ci nga ñoo wal yoon. ba hmm. ñoo yoon wi ngay jaar. donc euh, day le conseil constitutionnel jox nañ ko gëdd maintenant question bi bala nga doon ci conseil constitutionnel la démarche parce que le hmm. président a fait un discours hmm. dans son discours dafa am ben cadre bu mu ci cadre bobu dama bëggoon ci fépp lu ñuy def mon magistère l'ordre politique ne surprendra jamais l'ordre légal ça veut dire tant que man maa ngi fiy nekk di jiite réew mi li nga xamante ni mooy yoon maanaam lu légal lii yoon hmm. kenn du ko salfaañe di ko nappaaje ngir teg fa mbir politique c'est important phrase boobu elle en dit beaucoup dire que tey du ay calcul politique wala mbir politique mooy tax ñuy salfaañe l'ordre légal ça veut dire li jëm ci euh yoon tandis que bu ñëk ba liñ doon def moy da ngay jël constitution nga tégué na lé bu constitution bi ne fi nga wara jaar nga dem wut yow yoon mi ngay jaar pour def li nga bëgg def donc pour man il a posé un acte fort c'est-à-dire dem gisante ak conséquence né laaj leen té mënon leen baña laaj kon fofu jital na l'ordre légal bu avez ce discours vous sous mon magistère jamais l'ordre politique ne surplantera l'ordre hmm. légal. ça veut dire qu'on ne doit pas inverser. c'est-à-dire la légalité doit être au-dessus de tout mais si vous da ngay Macky par exemple élection présidentielle il hmm. y a un ordre légal. qui a un calendrier électoral qui fixe la date des élections le changer y nañ 13 élections présidentielles a changé. Macky Sall dindi ordre légal son ordre politique pour arrangé par exemple je donne juste à titre d'exemple donc ici au moins ça me rassure il a joint il a fait un acte fort après la parole vous faites daf ko wax rek yam fa a mais am garantie mu def lu wute ak loolu su boobaa ma taxaw ne ko ah kii lii la waxoon te def ko alors beneen bi euh, mu ngi wax ni li indi mbir mi bëri na nag ay interprétation hmm. parce que c'est très simple parce que man lu mu mënul admettre toog nañ fii ak yow émission ma wax ko balaa président di ko wax wala kenn di ko wax parce que suma xalaat la j'ai dit je ne peux pas comprendre ni admettre ni pardonner au parlementaire de rejeter le débat d'orientation budgétaire. Soit c'est une méconnaissance des textes ou une méconnaissance de leur mission. Je m'explique parce que dans la session budgétaire, le plus important, c'est le débat d'orientation budgétaire. Comme son nom l'indique, c'est un débat où l'ensemble des députés vont débattre sur l'orientation des politiques publiques. Ça veut dire budget d'où, budget Sénégal, nous voter des dettes balaa ñuy def budget dañuy def débat d'orientation que le député bi rôle di gëna fessé. Fofu lay ñëw ni man député Pikine là, Pikine amuñu police centrale. Hmm. la police centrale bu way mo polariser police du département de Pikine. Guédiawaye nek 5 communes département de Pikine 12. douze. Guédiawaye am caserne sapeur pompier Pikine amul caserne sapeur pompier est-ce que vous comprenez. Guédiawaye préfecture Pikine ci préfecture Guédiawaye la mais là c'est dans le débat d'orientation budgétaire qu'on puisse orienter par exemple le ministère de l'intérieur ci tu ci sécurité dans l'orientation du budget du Sénégal il nga koy

l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts de Ousmane Sonko ou d'un parti politique ou de la paire est-ce que est-ce que a un flow bu baax je te donne un exemple très pertinent par exemple le débat d'orientation budgétaire quelle que soit la situation politique si le Sénégal moo leen yitteel te ñor leen waruñu ko jël parce que ni ñu fallait non noonu lañ fallait fale te ñoo ngi fayeeku sénégalais ñoo leen yabal kon pour man c'est inacceptable le président l'a soulevé hmm. il a parlé du débat d'orientation budgétaire qui a été rejeté par les parlementaires y nañ yeneen forme buñu mënoon contester wala ñu poser acte mënoon nañ jël seen écharpe de député dem taxaw buntu primature wala taxaw buntu palais je sais pas mais le débat d'orientation budgétaire waruñu ko woon rejeter hmm léegi nag fi nga bëgg a dugg dangaa la fa duggal. li indi loolu mooy sur la déclaration de politique générale. Hmm. moi je vais rester sur les principes bi ñuy commencé émission.